mbokk yi asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média 19h30 jot na xibaaru timis yi bokk na ci euh, ponk yi gën a fës benn waay bu ñu fekk mu faatu ci këram ca Yoff Apexi 2 bi ci ndakaaru ñu ne ab franco-sénégalais la bokkoon ci fédération sénégalaise bu rugby gendarmerie euh, ubbi na ci ab euh, enquête. ba tey ci xibaar yi mbirum euh, waa jooju faatu woon ci hôpital Maam Abdoul Aziz Sy baax ba ca Tiwaawan ginnaaw bañ ko doon opéré ay jege ñaaleem ba léegi ne dañ koo soofantal ca hôpital ba moo tax euh, mu mujjee faatu ñu ne nag médecin yi li ñu wax euh, dafa dëppoowul ak li am dëgg-dëgg ñu ne sax dinañ dem ca yoon daal di kalaame BRT di bus rapide transit def na ay desertam yu njëkk tey jële muy dem bég dikk bi ak ay kiliyaan passager yi di ko rafetlu bu baax a baax ndax ni mu gaawee ak confort biñ ci am ministre bi ñu dénk wàllum dem beeg dikk bi ni ñaax usagers yi nag ñu sàmm BRT boobu ndax seen moomeelu bopp la wàllum tàggat yaram football ci jigéen ñi tournoi wa A ñi seen at motagul ñaar fukk suñu gaynde yi nag xam nañu ñan lañu ñu nar a bokkal muy groupe A bi ak waa Gambie Guinée Bissau ak Mali loolee lépp tënk la ne tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi ñu tàmbalee ko ak li xew fële ca diwaanu Ziguinchor benn ressortissant français moom la ñu fekk mu euh, faatu moom nag benn buum euh, ci loos bi ci këram yëf yaa ngi xewee ca foofule ñu naan ba lu soriwul dara benn euh, restaurant bu siiw bu nekk ci commune bu Ziguinchor police ubbi na ci ab enquête ngir xam ci yenn anam la waajooju bàyyeekoo fële ca France ñàkkee bakkanam ndax xamaguñu ndax dafa xaru wala dañ koo ci turu euh, Pierre Olivier Boucheron jamono ji néewam jëf yóbbu nañ ko euh, ca morgue hôpital régional ba ca Ziguinchor ngir amal ci autopsie euh, ci ay xibaar yi tukkee ci suñu correspondant di Lamine Ba. leneen itam lu ni mel daanaka fii la xewee ci ndakaaru rawatina ca Yoff apexide benn waaye lañu fekk ci këram mu faatu ba noppi ñu takk loxo yi yëf yaa ngi xewee ci guddik altine moom mi ñàkk bakkanam nag ñu ne ab franco-sénégalais la euh, di wuyoo ci turu Gilles Marchand bokkoon ci fédération sénégalaise bu rugby euh, moom mi ngi doon dund ca Yoff nag ñaar fukki at a ngi nii ba léegi gendarmerie nationale ubbi na ci ab enquête euh, leeralu di sa Préra ak Amadou Ba. ci kër gi nekk APEX 2 la ñu fekk Gilles Marchand mu faatu ci guddik altine jàpp talaata muy ak faatu gu doy waar ndax dañ ko fekk ñu yeew ko ci biir kër gi franco-sénégalais bi bokkoon fédération sénégalaise de rugby te taxawaloon maison de rugby bu nekk sa yoof seen góor dañu xam ne amul benn trace de violence te it kër gi amul dara lu nuroog loo xam ne dañ ko fa dajji loolu di wane ne mën na am ne Jules daf marchand dafa xamanteeg ñu nga xam ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaawteef woowu libération moom dafa jàpp ne dañ koo xoj mu jaare fa ba ñàkk bakkanam enquête bi nag waa section de recherche bu gendre yi ñoom ñoo ko yor seen góor nee na am na ñoo xam ne ñu ko jege lañ woon te it gendarmerie teg na leen loxo. jërëjëf di imam Abdoul Aziz Sy Dabakh ba fa jeexagul ba tey ndax ndaw bii di Abdou Aziz Guèye te mu faatu fa ginnaaw bañ ko doon jéem a opéré ay jegeñaaleem ñi mu bokkal kër ak ay sax nag xaritam bokk ak ñoom quartier ñoom dañoo jàpp ni dafa demoon foofu foofule ñu soofantal ko ci hôpital bi muy négligence euh, tubaab di ko woowee noonu le ñu ne médecin yi kàddu yi ñu yëkkati dafa wute loolu ak li am dëgg-dëgg ñu ne dinañ dem sax ca yoon kalaame Cheikh Anta ak euh, Seylatir dem nañu ca njabootam reportage fii ci quartier Kër Marouba Gueye digganteem ak l'hôpital bi daanaka sorewul tali bi rek ko dox seen diggante kër gi mi ngi fees dell ku ci nekk ñëw di jaala si i fidda du tey di Abdou Aziz Gueye ñii di ay mbokkam ak ay xaritam ñoom ñëpp ñu ngi ci njàqare nee na li médecin bi wax ci point de presse bi mu doon amal bari na ci lu lëndëm ak lu leerul te gëmuñu ko pendant quinze jours bërki démb lay doog di dugg balak te yañ ko waree fajee yëpp taxaw na ça fait une semaine dañ ko négliger ñun amuñ ci lu dul mu dugg bolok bi mu duggee bolok démb bërki démb 15 heures mu faatu waxuñ ko nit ñi waxuñ ko ay mbokkam ba après timis lañ koy dog di wax nit ñi lañ koy dog di annoncé ni faatu na kon loolu nag dafa am leneen lu ci luus luñ ñu waxul loolu lañ bëgg a xam nag nañ ñu wax li xew askan wi fii ci Tiwaawan ñu ci bëri nag mer nañu nee nañu sax mbir mi duñu ko bàyyi noonu dañ ko yóbbu ci yoon ñoom famille bi buñ ko deful ñun ñi ay xaritam ñun ñu def ko magam la waaye nee na lu mu gis ci hôpital moom ab Abdou si Sy baax bu Tiwaawan lu dey waar la te war nañ koo lañ waaye waaye bu fekkee dañuy dañuy def opération échec nan nangu ni loolu moo am ñu nangu dëgg gi mu jeex amul problème non maanaam xam li problème mooy hôpital Tiwaawan lii xëy na yii de bokk ci yi ñaari yoon la fi opéré jigéen di ak césarienne di faat ay di faat ay bagages ci biiram muy muy infecté nga koy jël liggéey loolu am na ci hôpital Tivaouane waa Tivaouane ndaw ñeeg jigéen ñi ñu ci bëri nag ñu ngi waajal nee nañu doxam ñaxtu bu ñu fas yéene amal ci alxamis ji bu ñetti waxtu jotee ngir wax li leen metti ci l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane tey jëlee fukki fan ak juróom ci weeru mais mooy bés bi ñuy fàttaliku faatub étudiant bi di fàllu seen tey la def juróom benn at ay mbokkam yi nekk fële ci village D bu université Gaston Berger ba ca Ndar ñoom ba tey ñu ngi woy di ñaan yoon mu def liggéeyam mu ne ñoom ay étudiant jàpp ne ñi def lu ni mel dañoo war a xam ñan lañu u seeni Diop Habib Seck dellu nañu foofu le ca Sànna reportage village D bu université Gaston Berger bu Ndar étudiant bi di Fallou seen ñu assassiné ko ci atum 2018 fii la dëkkoon ñu fa nekk di ay étudiant ñu demaat seeti leen ñoom nag seen bopp lañu bëgg mooy mbir mi ma Massaer Ndiaye di étudiant ci université Gaston Berger bu Ndar mais ñu koy affaire la ba nga xamante moom chaque jour étudiant yi koy naqarlu bu baax a baax comprendre chaque jour étudiant yi ñoo ngi laaj justice ci kanamu néeg bi nga xamante ni Fallou Sène fa la dëkkoon ñu daal fay def photom photo boo xamante ni ñoom étudiants yi nee nañu la ñu bëgg mooy seen moroom yi di ci roy jàpp ni am na seen benn morom boo xamante ni mi leen doon xeexal ba ñàkk ci bakkanam Maguette Ndiaye étudiant la ci village D. mun na ko jàppee comme une légende quoi moom ku baax la woon fii quoi waaw ah, c'est pourquoi ñu defar ko lii pour que même boo dëkkul si village boo ñëwee si G bi nii boo gisee photo bi nga ñaanal ko loolu lañ loolu lañ ko desee quoi ndax moom dana xeex pour ñun. Fara Diatta moom néeg bu Fallou Sène dëkkoon fa dëkk nee na lu ci bare mbiru falu seen day desiwaat ci moom moom gis na ni mbiru falu Sène taxaw bi ci waroon am amu ca. naqar lañ ciy jëlee ah naqar parce que suñ sañoon tey ñu xam euh, justice justice am ñu xam carrément lii moo xew. bon mais ba tey dara dara changé aussi quand même. ah évidemment évidemment te chaque jour gis nga képp kuy ñëw da ngay jàkkaarloog photo Fallou Sène ça te rappelle des mauvais souvenirs te il était il se battait pour une cause vraiment très très noble juróom-benn at ginnaaw Fallou Sène ba mu faatoog léegi dafa mel na dossier am na muy doxee doxu kàkkatar la moo tax nag étudiants yi jàpp ni yëpp dafa war a leer ngir waajuram mën a xam kan moo faat seen doom. leneen ci xibaar yi BRT muy bus rapide transit tey jii la ñu tàmbali desserte yi ay passagers yu bëri jël ko diggante Géejawaay dem ba Ali Papa Gueye Fall fii ci Ndakaaru ñoom ñu ci bëri nag wane seenub mbégte ndax yëf yi ni mu gaawee waaye tamit confort bi ñu am lenn rek lu leen ci xaw a jaaxal tuuti muy wàllum kaaraange waaye tamit ñu ne bu ñuy euh, marqué arrêt yi euh, dafa mel ni duñu dégg bu baax seen i kàddu ñoom ñëpp ci micro Habib Faye non c'est confortable chauffeur yi dañoo yaru ba pare fu ñëw taxaw dañ fay taxaw ah vraiment daal climatisé clim dafa dafa nooy jaar na yoon daal waa mais nag ñun lu ñu xaw a joore rek mooy problème sonorisation bi daal buñ ko mënee yokk tuuti dina baax quoi mais lépp na non pour ñu yokk quoi pour arrêt yi quoi parce que loolu dafa xaw a des quoi waaw su ko defee comme terre bi rek ni ni muy leeree boo moo mënee wàcc ñu xam ne fii nii da ngay wàcc mais déjà communication bu ñuy wax doo dégg bu baax ko mais teel bi moom lépp nice quoi sant rek. waaw bis laa jógee de macha allah bon man li ma ci gën a intéressé mooy que ni euh, sécurité bi quoi boo nekkee ci biir da ngay gis ni c'est confortable am na sécurité et aussi voilà quoi buy daw doo sax dégg waaw ah, franchement et yoon bi gaaw na trop waaw ah, man pour la première fois ma koy jël mais bon alhamdulilah macha allah ndax tey le fait que si embouteillage yi autoroute bi mais là moom on a l'impression que ni avion nga nekk. man maa ngi jógee ba Guédiawaye ñu traverse si kaw tali yeeg yooyu ba mu yéexal affaire bi sécurité bi da xaw des si gars yi kaw voie bi quoi sañoon daal sécurité bi gën a taxaw ñu oto bi du mun a yéex macha allah moom Guédiawaye lañ jógee daal nañu même pas 44 minutes yéeg si. lépp luñ ci wax rek am na gaaw na neex na ligg si na amul benn problème ah te nañ sant yàlla bu baax a baax ndax avancement la ndax bari na yoo xam ne amu fi te yàlla dogal na ko Sénégal. macha allah gaaw na macha neex na trop macha allah macha allah d'ailleurs man sax dama ñëwoon tey pour laaj ci abonnement yi parce que boo yoree soto dina la dimbale comme géejuwaay ngay mën a xëyee nga mën a gaari géej waaye dugg ci ñëw loolu moo taxoon ma ñëw jaar ci mais macha allah yàlla na ci yàlla def jàmm ñu fekk ko ci jàmm àggale ko ci jàmm parce que adduna bi ñun amuñu lu dul loolu dañuy ñaan lépp luñ gis bitim réew ñu indi ko fii ci réew mi ndax nit ñi yaayoo nañ ko ni ngeen ko gisee fay Faye dajane ak euh, passager yu njëkk yu euh, BRT yi ku ci mel ni Mouhamed Ndour moom nag euh, am mbégteel am ndax dafa jàpp ni embouteillage yi dina tàqalikoo ak ñoom ak pollution maanaam saxaar su bon yi mu doon nooyi ci yeneen moyen de transport yi la mu nar a def nag mooy dem jëli ji abonnement mensuel maanaam weer bu jot ngir gagner plus de temps ndax dafa gis ni tey jilee waxtu wi mu daan def pour dem liggéey ji gagné na ci 45 minutes ndax embouteillage amul reportage Habib Faye BRT bi dox na Mouhamed Ndour xaarul diir ngir bokk ci ñiy njëkk jël bis bi géejawaay fii lay yeewoo ci Sam Notaire jege na nag ak station de change bi tey ci suba mbébétam moo nekkoon mu jël BRT bi bàyyi yeneen ndaamaar ya mu daan jël ngir mën a dem ca Colobane barabu liggéeyukaayam. ah souvent bu ñu doon voyage yi dañuy daj ay embouteillage yu méttee méttee méttee méttee te gis nañ ne BRT bi moom yoonu boppam la ñu yaakaar ne buñ ko jëlee moom temps buñ doon def pour yegg dinañ def moins pour mun a yegg dem dem liggéey. ginnaaw bi mu duggee ba toog la mu njëkk a def génnee téléphone am commencé filmer image yooyu mu ne daf koy dugal ci réseaux sociaux yi. lii foofu ma ko pour profiter aussi. ah non WhatsApp WhatsApp desat yi profiter ko ñoo bokk <laughs> mbégte mu ne am na ko nekk. ki njëkk ci biir BRT bi. parce que c'est pour la première fois xam nga moment yi day baax pour ñu sauvegarder ko di profité itam bii ngi toog clim beeg lay dal waaw loolu ne sax connecté wu si wifi bi loolu rek mbégte lay doomu géejawaay bi jël li def ko moomeelam te commencé ko tëkkaleeg yeneen oto yi. trop sax trop gaaw na trop gaaw na trop. waaw bu ko comparé ak souvent bu doon voyagé ak yeneen yeneen soit mu nekk bis Dakar dem dikk wala super wala Ndiaga Ndiaye. yegg si nañ fa mu doon jëm mbégte la àndal nga koy seen Mouhamad mën na dem ca barabu liggéeyukaayam tey te du tardé léegi liy mbébétam moo di mu abone ci BRT bi weer wu jot lii dina ko fànkal muy topp rang bi suba gu jot. vraiment lii lañ xaar nag lii lañ doon xaar waaw yaa nañ ne dëkk bu buggee bu buggee di di di di avancer dañuy réduire te gis nañ voyage bi nii bon buñ doon def une heure trente presque daanaka quarante cinq minutes lañ ci def buñ amee possibilité mun a abonné sax xam naa dinañ ko def mbégteem foo ko natt weesu na ko mu ne bésu tayam bi ci biir bus bi dootu ko fàtte ba mukk daf ci yàkkamte woon yéeg ndax yàgg koo gis muy romb ci biir koñam waaye muy woo askanuk Sénégal ñu bàyyi xel ci li te sàmm ko ndax moomee li ñëpp la jëwriñ bi ñu denk wàllum dem beeg dikk bi di El Hadj Malick Ndiaye moom itamit loolu la wax muy ñaax passager yi ñu sàmm BRT boobule ndax moom moomeelu ñëpp la moom ci boppam itam mi ngi woon ci desserte bu njëkk boobule ay kàddoom moom ministre de transports ci micro Habib Faye. loolu c'est important def nañu trajet bi gis nañu ni ñu ko aménagé gis nañu aménagement yi nga xam ne tamit fi ñu jaar def nañ ko fa ça c'est important euh, bi ñu yegsee fii tamit gis ngeen ko. lu jëm ci wàllum tarif yi wax na ko sànq euh, yaakaar naa ne juróom-ñett fukk ak téeméer euh, lu xel mën a nangu la waaye dañuy wax ne 16 pour cent téeméer boo jël fukki ak juróom-benn dañ leen a defal tarif réduit à 50 pour cent parce que xalaat nañ ñi néew doole mais aussi aménagé nañu en euh, bus yi ak surtout fi nga xam ne mooy station yi de sorte que. ñi nga xam ne dañu nekk des personnes à mobilité réduite prévoir nañ leen te loolu dafa nekk lu am solo di wax ni euh, projet bu ni mel ñun ñoo ko war a sàmmal suñu bopp ci naka mooy ci saa yu ñuy doxal mbir waxuma sax BRT mais de façon globale ñuy xalaat intérêt général ñu mën a xalaat qualité yow mi projet bi nag yamul fii am na beneen bu ñuy lancé fii ak 30 mai allah nga xam ne euh, boobu euh, sur plus de 230 milliards euh, avec 14 lignes pratiquement 1000 bus à gaz yaakaar naa dina am lu mu joué waat am na yeneen aussi mooy les car ak bus de rabattement yi nga xam ne dina mën a permettre ñenn ñi di mën a jugee ci yenn zone yi xaw ruq yi ñëw fekk si trajet wu BRT bi. ñu dem fële ca bët gànnaaru réew mi rawatina ca Donde Mayo foofule askan wi xam ngeen ni dañoo am njàqare ndax dañuy tiit euh, nawet bi bu ñëwee mbënn mi sonal leen ndax liggéeyu tali bi war a jaar foofu foofule dafa am retard bu baree bari euh, préfet bu Kanel mu nga woon foofu ngir xool euh, situation bi naka la demee ci càkkuteefu Ageroute te ñu dénk ko liggéey bi nag bépp entreprise bu laalee ci liggéey boobu lee dañuy sàkku ci ñoom ngir ñu taxaw mën a intervenir bu fekkee taw bi dafa ñëw foofu indi ay gàllankoor. gàllankoor ci dem beeg dikk bi Matam Matam Ali Bandel Niang Li gannaaw bu ñu fëggee seen gémmiñ di woote wàllu gannaaw itam bi météo siwale ni nawet gi na teel a tàmbali ren préfet bu département bu Kanel dafa sol dàllam wàcc ci terrain bi dem nemmeeku liggéey yi ñeel defarum yoonu dandemaayo bi waral coow li ñëw xool fan la liggéey bi toll waaye tamit xool ndax li nga xam ne mooy recommandation CRD prévention lu contre les inondations ndax ñu ngi koy amalam déet mooy mbënd mi ndax fii zone la boo xam ne dafa bëri ndox bu nawet jotee ndox yëpp yu jóge ci jéeri bi ak ci ferlo bi fii lay si te kuy defar yoon da ngay yëkkati suuf si loolu mën naa yokk inondation yi kon léegi li ñu tax a jóg mooy ñëw xool ndax daal li nga xam ne ñu ngi koy def ci liggéey mbaa du jur ay mbënd tiitaange gi ñu amoon nag waaye gannaaw bi ñu dalloo kilifa gi ànd ak ay technicien askan wi bokk ci di diwaanu Dandemaayokat nee nañu mun nañu tëdd nelaw ndax itam am ñu yaakaar ci li ñu dégg. donc loolu la ñu doon joytu parce que ren dégg nañu ndox dina bëri te ñun si zone Dandemaay la ñu la ñu nekk yoon bi tàmmali na. yoon am na point yu ñu daggoon yu jeexuloon donc dañu ragal ndox ñëw aussi dugg si biir kër yi donc gën yokk donc inondation bi gën yokk donc enclavement bi tey déplacé nañu ñëw nañu gis nañu. Euh, ils nous ont aussi. kër gi di Ageroute nga xam ni mooy maître d'œuvre projet routier bu gudd bi toll ci téeméeri kilomètres ñu war koo defar goudron. tax na kon ba Boubacar na nekk contrôleur travaux yi xamal askan wi ne ab dispositif la ñu mettre en place di ko jëlee ore ba ba nga yegg dem dembankaan yi ngir ottu inondation yi. ministre bi nga xamante ni moo yor wàllu yoon wi dem weeg dikk bi daf joxoon ndigal Ageroute ñu ñëwaat su le terrain. Euh, xool. yan disposition lañ war a mën a jël bu ko defee bu nawet bi ñëwee euh, jafe-jafe yi nga xamante ne danañ ko seetlu at yi passé ci dem beeg dëkk bi ci tali Dandé bi mu gën a mën a wàññeeku. Euh, bi loolu amee xool nañu ak entreprise yi nga xamante ne ñooy liggéey sur Dandé Mayo yëpp commencé Oréfondé ngi julooñ ba dem Bankaane ñu jël les moyens matériels ak personnels yi nga xamante ne dinañ ko soxla. ñu mettre à disposition. lu ko jëlee nawel ba dembankaani jaare ko bow ba ci waawnde tournée bi ñu doon amal ci terrain bi tax na kon ba ñu nemmeeku tolluwaayu liggéey bi ñeel defarum yoonu Dandemaayo bi nga xam ne buñ ci noppee moo war a désenclaver lu ëpp juróom-ñett fukki dëkk yiy longé dexub Sénégal bi lu soriwul foofu ñu wax ci élection présidentielle bi war a am fële ca Mauritanie ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin candidat déclaré bi di Hamidine Lamine Kane moom li muy naqarlu mooy dañuy jéem a euh, bloqué candidature am foofule ca réew ma dafa jàpp ni ministère de l' intérieur moom mooy teg ay pression préfet yi nekk foofu euh, foofule ngir ñu bañ a valider ay signature yi mu soxla ci wàllum parrainage moom candidat indépendant la daf koy naqarlu ndax dafa jàpp ni loolu dafay gàllankoor euh, démocratie muy. sàkku nag ci communauté internationale bi ñu euh, taxaw ci moom Hamidine lamin kan ay kàddoom ci mitro euh, ci micro Fatima Kane les entraves Euh, les entraves. man sama bokk ci élection présidentielle ñu dëgmal le 29 juin fii ci Mauritanie dañ ko nar a nasaxal mu am benn tentative ngir bloquer sama candidature de loolee nag mu ngi jóge ci kaw ñu jaarale ko ci ministère de l' intérieur moom mi nga xam ni moo joxe ay directives ci région yëpp fii ci Mauritanie ngir ñu bañ a valider samay signature jëm ci wàllu parrainage de man candidat indépendant la loolee nag su amee violation bu mag mooy am fii ci Mauritanie waruñu ko nangu may woo communauté internationale ngir ñu ñëw jàpp ci lii fii nii bu fekkee ni képp ko bëgg a nekk candidat dañ lay rekk daal di baare sa yoon ba nga xam ne doo mën a daggaan baatu askan wi dama ni lépp lu jëm ci wàllu démocratie tey nasax na fii ci Mauritanie te nag li ci gën a grave mooy ñun suñu président moo nekk président Union africaine loolee rekk dafa am lu muy wund dafa war a soppi doxalin exemple la war a doon ci Afrique wërngal këpp lépp loo jig fépp dinaa ko def te lii nga xam ne moom la ñu namm amal ci sama jëmm ji man dinaa xar sama tànk tubéy ba du am mu doon Hamidine Lamine kan ci micro euh, Fatima Touré ñu jàll ci wàllum euh, tàggat yaram euh, wax wàllum athlétisme ak meeting bu Dakar lu bokk ci wala boog lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ay nationalité ak téeméer ak juróom fukk ci ay athlètes la ñuy xaar fii ci Ndakaaru ci ndaje bu mag boobu nar am ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai ci terrain annexe bu Diamniadio mu di ay kàddu yu tukkee ci premier vice-président bu fédération sénégalaise bu athlétisme Soxna moom nee na nag xew bi dina neex loolu euh, ci euh, meeting boobu nekk ab meeting qualificatif ci Jeux olympiques yi nara am fale ca euh, Paris juillet jàpp août ñu déglu ko ay kàddoom ci micro Cheikh Sadibou Diarra. nga xam ne meeting bi dafa bokk ci compétition yi nga xam ne World Athletics daf koy bàyyi xel bu baax ndax athlètes yi ciy ñëw di ci joŋante dañuy mën am possibilité suñu defee performance yu baax qualifié pour euh, Jeux olympiques deux mille vingt quatre donc ñu ci bëri dañuy ñëw pour wut si euh, qualification beneen bi ci topp mooy dañoo jógee meeting bronze nga xam ne organiser nañ ko ñaari at yu mujj yi nii euh, World Athletics yéegal ñu meeting silver meeting silver moo ëpp dayo moo ëpp niveau moo gën a kowe parce que bu buñ ci jógee ci si ñaari at dañuy yootu meeting or donc euh, loolu nekk aussi lu am solo parce que loolu bu ko nit ñi déggee rek dañuy ñëw daw pour bëgg a daw si meeting bi bon beneen bi si topp aussi mooy ñi ngi ciy xaar ay athlètes lu tolloo ci cent cinquante athlètes yoo xam ne dañuy jóge ñii Afrique ñii diaspora bi am na nag lu war a mat dix-sept nationalités yu ci war a participer donc meeting bi euh, ren am na solo ci côté. sportif mais aussi am na solo ci côté touristique parce que am na aussi euh, jeexital ci côté économie bi parce que bu ñëwee ci hôtel yi la ñuy loger dinañ fi dund dinañ fi nekk ay fan loolu daal dana permettre aussi suñu athlètes yi nga xam ne ay tête d'affiche lañ mooy ñoom Liw François Mendy ñoom Sali Sarr ñoom Cheikh Tidiane ak ñeneen ñoom ab Mamadou Fall Sarr mën a wane seen bopp beneen xeetu tàggatu ci wàllum xel muy jeu de dame euh, Mor Seck Abdou Khadre Montero Abdoulaye Gaye euh, ñoom ñetti duel yi ak Modou sekk ci spécial euh, ñoom ñoo jël ndam li ci jeu de dame yi doon am fii ci Ndakaaru compétition boo xam ne ñi ca bokkoon nag amoon nañ ci mbégte bu baax ak ñi ñëwoon seetaan ak ñi ko organiser ñu bëgg ko wéyal saa su nekk Cheikh Sadibou Diarra ak Amadou Ba teewoon nañ fa reportage ay jongante yu ñu amal ci juróom benn pàcc loolu moo di tournoi bi dajale woon ay grand maître ak i maître ci jeu de dame indi compétition bu serré. ci plateau yi nag comme euh, dañu doon boole Mor ak euh, Cheikh Lam euh, Mor Seck jël na revanche ah, def nañu cinq matchs nuls ba dernière ronde bi mu gañee Mor Lam donc moom mooy vainqueur bi léegi yeneen ñaari parties yi mooy ñu ngi boole donc Montero ak Mame Sey Niang ñu boole leen donc ñoom tamit ñu def ay matchs nuls ak ku nekk am benn victoire. si moromam donc bu ñu di yegee da bi bu ñu tënk mooy bu ñu dekkee match nul bu ñu amee match nul dañ leen di boole ñoom. si parti bu gaaw donc si parti bu boobu donc euh, Montero moo gagné léegi bu nes bu Ablaye Gaye ak euh, Ansou Ndiaye ku nekk am jaari victoire ak ñaari match nul bon jumbale leen nag donc si parti yu gaaw yi si parti yu gaaw yi donc euh, Ablaye Gaye da gagné Ansou. ci tournoi bi itam ñaari joueurs sénégalais yi gën a xarañ jamono jii. laale nañ ci. Modou Seck euh, tournée yu ñu def si région yëpp moo moo jë moo raw gàddu moo moo moo gàddu affaire bi ndam mi mais Ibrahima Gaye aussi bi ñu defee ay euh, euh, compétition internationale moom moo classé le maire sénégalais donc moo raw ñëpp donc il fallait ñu ñu boole leen. boole encore ñoom bu ñu dajee si tournoi yi toujours ay marché lay doon donc léegi ñu boole leen ñu nekk ñu def juróom benni ronde alors bu bu ñu paree. donc am nañu cinq matchs nuls ak benn victoire Modou Seck moo gagné. si parti yi gis naa ne vraiment. nit yi intéressé nañ si trop trop trop même bitim réew sax dañu laaj parti yi ba pare di ko commenté nag bon loolu mooy euh, vraiment euh, mu ñu encouragé pour ñu continuer tournoi yi. loolu tax na ñu fas yéene ko amalaat ci weeru juin fii ci Dakar laata ñu koy yóbbu ci yeneen i gox yi. ñu ngi leen ko doon wax sànq wàllum euh, football ci jigéen ñi ak euh, tournoi UFOA A ñii seen at motagul ñaar fukk euh, Sénégal xam ñi mu nar a jàmmaar lool compétition bi dina am 20 jàpp 30 mai fii ci Thiès ñoom gaynde yu jigéen yu ndaw yi ci groupe A lañ nekk bokk ci ak Gambie Guinée Bissau ak Mali. ca poule bi moom ñu ngi fa fekk Libéria Guinée Mauritanie ak euh, Sierra woon euh, du ñàkk ci xibaaru français yi ngeen déglu ci Abdoulaye Cissé bokk ci commité exécutif bu fédération sénégalaise bu euh, football. fii la ñuy yem ci xibaaru timis yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun ci kanam tuuti incha allah 20h di ngeen ànd ak Sarah Cissé ci journal bi en français ñu ngi leen di ñaanal ngeen fanaan jàmm mbokk yi jërë ngeen jëf.